ka importé nga ba bambara nga njëriñ la ci àllum Mali ba ñëw Balla Gaye tabax këram di village waa bu mag dugal la ngay wax. laay waaw ah, Youssou Ndour ko def rek moom mi village waa jugee ba Fissel di jël village waa bu jugee ba Mali ah di ko di ko indi ci télé muy muy mel-mel di wax lépp moo. abu. waxal gis nañ la li ñaaw nag mais garaawul quoi. liggéeykat la liggéeykat la quoi ñaaw na nag quoi balaa ngeen koy wax ma wax ko gaay moom fi dara nag tamit yooyu tamit da cee yokk quoi mais garaawul garaawul comprendre. dañ ñun dañu liggéey fii deet feer liggéey ba yor xamante ne nii mën nañ cee jën sax kërug Ndakaaru. te yow ba nga if bu dee fi nga juddoo yaroo fi yoroo mil francs yoo lekk yow télé bee la sagal rek ak nga jënd say diw xeesal François Bourré bi nga laal xees fecc rek ba nga sonal jaam yàlla est-ce que nee nga ma est-ce sax laal nga laalaake nag ñun deetul feer deetul kaw kaw ñun kaw nga leen jóge ay kaw kaw lañ barke alxuraan mooy nit lii tax mu tekki du jóge ci doomu aadama nit lii tax mu tekki ci ñaqam dong la mën a jóge Et cette situation, cette situation politique de dépendance, cette politique de la mais tendue, malheureusement, c'est le système de 1960 à maintenant qui est en train de mhm. l'entretenir, mhm. qui est en train de l'amplifier mhm. au point de réduire notre jeunesse à une jeunesse qui tend la main. Parce que tout simplement, on leur dit, il y a la euh, DER ici, il des financements. cas importé nga ba bambara nga njëriñ la ci àllum Mali ba ñëw Balla Gaye tabax këram di village waa bu mag dugal la ci ngay wax. waaye waaw Youssou Ndour ko def rek moom mii village waa jugee ba Fissel di jël village waa bu jugee ba Mali ah di ko di ko di ko indi ci télé muy muy mel-mel di wax lépp moo.